de l'intérieur je pense que lii mujj nañ ko traité bi ñuy euh, bi ñuy wax sànq. Euh, euh, Pape Djibril avec deux cents arrestations quand même ña maanaam jàpp nañ ñaari téeméer ci ñi doon manifester loolu la Aly Ngouille Ndiaye siiwal ministre de l'intérieur mais je pense que ci biir waxtaan bi Pierre est-ce que est-ce que duñu jàll jàll ci beneen bi. parce que ci biir biir waxtaan bi mujj nañ traité sujet yi mm. ñu gagné du temps deux cents arrestations yooyu buñ ci jógee mi. Euh, Rachel Boucal ministère développement communautaire la xam nga ñu ngi doon wax jafe-jafe yu ministre bi jundu à la une du populaire euh, bee passé bi yoon moom soxna si euh, daal di nay leeral mooy secrétaire général ministère bi ne bu dee Tamba ak Kédougou Sédhiou Sédhiou foofu ak Kédougou joxe nañ ba mu mët dund yi Matam Kaffrine Kolda Ziguinchor ñi ngi 55 pour cent te ci biir ay bés bi loolu bokkul xëy na ci li ñu bind dina dinañu matale dëkk yooyu dañu tàmbalee fi nga xam ni nag foofu la ñu xalaate ni ñoo ko gën a soxla séddale bi looloo tax ñeneen ñi ñi ngi yegg si donc tontu la ci suñu gis-gisu semaine semaine ba lépp soirée lan moo ci sa gis-gis lii nii li xew séddale bi séddale bi man day pour man je me ne Euh, ça j'ai pas participé au débat tout à l'heure sur le Covid. li euh, mhm, ngeen mhm. doon abordé. Mhm. mais man euh, Covid bi dama fekk Paris. ñun xam nañu yu confinement on a vécu ça pendant deux deux mois. ah ci ñi càngoon foofu nga. dégg nga euh, li ma ci xam daal mooy leen bari na benn aspect rek moo intéressé. moom mooy ne Sénélec man ah, excusez-moi Sénégal <laughs> am na à mon sens dégg nga Sénégal am na à mon sens stratégie de gestion de cette pandémie boo xam ne. on n'a pas à envier aux autres. parce que ñun li ñu nekk nii ay cas communautaire cas euh, cas contact loolu la français yi soog a commencé ñoom. Hmm. ay ca jibi je paas na Pape Djibril. Hmm, politique paas paas paas. ci séddale bi. ci séddale. ceeb bi. Ah. wax nañ ci bon moom la ceeb bi bàyyi naa ko ak mala. bilaay <laughs> ceeb bi ah, ah, ma ah, ceeb bi dama ko bàyyi li tax ma bàyyi ceeb bi mooy fu ma tourné ñu ngi may wax ceeb bi ceeb bi. bàyyi naa ceeb bi bàyyi naa ceeb bi kañ allez Charles. <laughs> xiif bu fi amoon famine kon mu am ñu dee. Bon, bravo au ministre Mansour Faye, même s'il a les quoi. <laughs> En fait, sa grandeur, par solidarité, même mais grandeur bi mu am mooy reconnaître qu'il a <laughs> si euh, Bouba a waxul quoi kii la mais le moment de l'évaluation tout dina génne lépp allez allez gis-gis bu mujj bi euh, le dernier gis-gis concerne euh, Imam Dicko li Mali la xew ci àjjuma ji mobilisation monstre alors imam bi daal dina yëkkat ni IBK bu demulee euh, du baax ci moom du baax ci dëkk ba ndax euh, dafa échoué ci gestion dëkk bi alors xëy na pour ñu gisul image yi lu xewee tey àjjuma ji la te imam bi tamit moo moo mooy buzz temps yi Mali su ma ko mënee wax noonu voilà merci Pierre mi nga xam ni won nañu finalement ce qui se passe euh, au Mali imam bi mooy def lii nii. waaw ah, bi mooy dajale ci moment bi ci moment bi mooy. nii nii nii nii. <laughs> ci moment corona bii. bul tiit bul xam malien ñoo ko wuyu ji nii. nii léegi moom mu ne moom mooy. bu bu bu bu ba tiit ah. non non dama posé question ah, non non non non benn manifestation temps heures ça va très vite fële ah euh, au Mali avec. Euh, contestation bi am. Mhm. contre le président contre le président IBK. xanaa ñoom dañu am benn kii boo xam ne day tax duñu feebar. Ah, xëy na waa xëy na dañu am anti corona de te yëguñu ko. waaw mën na nekk. <laughs> allez allez allez. waaw ñoom élection yi na. waaw te yàggul de. tax ko yàggul noonu waaw. <laughs> doy na la la Afrique francophone moom dama leen di yërëm. <laughs> Afrique francophone. non mais c'est à un pays de faire partie un paysan. pas à une personne de prendre l'initiative pour proposer ñu dem. en fait c'est les élections moom en Afrique francophone Mamadou Diko Blaise Compaoré dafa gagné George Floyd non non non non je te promets que c'est pas les États-Unis ajuma bii la c'est ce vendredi c'est ce vendredi depuis 6 heures du matin la ñu ah, commencé affluer si tu veux des détails waaw <laughs> mais lu war a tiital IBK la waaw lu war a tiital IBK Charles kii euh, le sort on est jeté ngom ñaa sant yàlla rek boo nekkee si dëkk bu mel ni Sénégal Sénégal parce que xam nga ñu ngi tiit si malien yi mm. donc ak li ñu wax suñu askan yëpp li ñu wax suñu jeunesse yëpp war nañu xam ne vraiment on est fier d'être Sénégal soirée daal li may li may ñaan pour tout toute euh, autorité qui gouverne dañuy éviter que l'expression populaire remplace le suffrage universel. merci jërëjëf euh, Pierre kon mun nga jëlaat antenne bi delloo ko directeur Ndiaga Bo sànq ba léegi mi ngi pré mi ngi woote ak di. nee ko veto euh, donc opposé nañ ci suñu veto en direct di gërëm di sant ñi àndoon ak ñun ñë ñi àndoon ak ñëpp ci euh, jàkkaarloo bi.